al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk daara ji maa ngi nuyoo teg ziar di ko teg ci loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xaban yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp te yàlla na ko yàlla boole ci ndokkeel mbokk jul yëpp ci at mu yees mi ñu tabbi ñaan yàlla def ko atum tawfiq atum jub atum baax jëm kanamu diine ak deltu ginnaaw kéefar ak ñi koy jàppale amin mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa dem ci am réew soxla ay kii nag waaye am na bunt yu bari yoo xam ne boo ci jaaree mën naa am nga man na am du am waaye bunt bi nga xam ne nag boo ci jaaree faaw nga am mooy nga wane ni góor jigéen nga ba nga nekkee sam réew ñu génne la fa su ko defee jënd seenu carte teew ci seen réunion ñu may lay kayit waaye mu ne moom mi koy def nag bëgg kee dong la ci jublu waaye doonut loola muy laaj lu ko lislaam bi wax ci loolu waaw loolu de du lu dagan ndax bu fekkee ne lam wax noonu la nga xam ne doonu ko wax na lu dul dëgg te wax lu dul dëgg dafa xaraam ci ab jullit bu ko doonee nag mooy yées moom te it nag loola du soppi dara ci li yàlla naraan ci lim naraan ci àdduna du yàlla bindee la bindaale wërsëgam kayit yooyee du soppi dara ci li yàlla namu ci moom ndax wërsëgam du faatu te lekk ko ba mu jeex moo taxoon yu islaam santaane ne ngeen rafetal eh, ni ngeen di sàkku li ngeen di sàkku na ngeen ko sàkku ci rafet ndax li yàlla namm rek ay am waxoon na ci xadis boo xam ne jibril déy na ma wax na ma ne benn bakkan du faatu te lekkut wërsëgam ba mu jeex lekk it ab diggam ba mu jeex kon rafetal leen ci biir sàkku génn sàkku lépp lu ngeen sàkku nañ ko rafetal yàkkamti seen wërsëg bu mu leen yan ci ngeen di ko sàkkoo ci loo xam ne mooy yàlla la ndax la nekk fa yàlla kat kenn du ko am lu dul la koo topp loolu it mooy wane ne eh, wax ne moom góor jigéen la jënd seenu carte teew seen réunion bañ bañ bañ jox ko këy yi wuti tax mu mu sopp ci yàlla bindoon ci moom la yàlla bindoon ci moom daal du fàtte jur ci na ko sàkku ci ne yàlla sàkk ko santaanee ko sàkku ci rafetal waaye bu wone mukk lu mu bu woote mukk lu mu doon rawatina lu bon loo xam ne ni eh, lépp ko tane wax lu dul dëgg it baaxut ak jullit lu nar te bu waxee ne moom la si doon ko loolu naru rëy rëy la rawatina ñu bind ko ci këyit ñu seere loolu wallahu taala alam mbokk mi laaj takk soxna waaye can gam ko jox alal ja da ko carte wala da jaay sàngar ba am ko ndax sëy ba dina wér waaw ak can dañ koy sart li ñuy sart ci njëg nga doon lu laab nga doon loo xam ne manis na koo jëriñoo ci sharia nga doon loo xam ne xam nañ ko xam num toll na doon it loo xam ne bu ne la woon andi nga man ne am nga ko mën a joxe kon ku canal lu daganut dañu wax ne bu fekkee njëkk wéet la dañuy firi sëy ba bu fekkee wéet nañ ma ko ne ñu door a yëg ne can ba day waaye nag ñu ko sadaqul miskin maanaam ñu xool ñu mel ne moom liñ leen baaxoo jox ci alal ju dagan ñu jox leen loola maanaam bu fekkee daal wéet nañ ba noppi ñu door yëg ne liñ ko canalee baaxut sëy ba day wéy ñu wut geneen cen gu baax te dindi ko mën nga kon alal ju xaraam alal ju xaraam moomu ko fekkee da ko sàcc wala da ko fàggoo anam gu wut kooku mënu ko jëriñoo kon da ko war a wut cen gu baax te alal joojee nag ñu joxe ko feneen foo xam ne eh, lu mel ne baytimaal mal amee ñu yóbbu ko fa wala lu taxaw taxaw baytimaal mën nañ ko fa joxe su ko defee ne mu joxe cen gu baax wallahu taala alam mbokk mi laaj sallallahu ala muhammad ak sallallahu ala muhammadin lan lañ ci war loolu ñaar yëpp la ñuy wax waaye fi ñu bu fekkee ne day jàng di dem day wax sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin waaye fu muy taxawee nag bu fekkee day nooy mom sallallahu ala muhammad lay wax bu fekkee day wax benn bu mu ala muhammad sallallahu ala muhammad làkku arab noonu lañ koy jàng waaye bu koy bind nag sallallahu ala muhammadin la ñuy bind ñaari masque waaye bu fekkee da ciy taxaw nag di noyyi foofa day maas daal gi masque ak ñëpp wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na tasawuf dafa am ay xeet wala te waaw tasawuf de li ko tudd dëgg-dëgg lenn la aw dundin la wu jaam bi dundi diggam ak boromam ci diineem ci anam gu gën a sell li am nag mooy ñu koy woote te dóoruñ li tudd tasawuf dëgg-dëgg moom lenn la ñu koy woote nag du ñëpp ñoo ko doon moom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa am xeeti saabu liquide saabu ndox champion loo xam ne matière yi ñu ko defaree nee nañ matière yu naturel la waaye nee bu ko nit di jëfandikoo bu yàggee day ñuulal kawaram muy ndax dagan na jëfandikoo loolu waaw ñuulal ci boppam day ci lislaam bu fekkee ne lëntal la ci waaye jublu day xaraam mag mu bëgg a nëbbu ak mageem moo xam góor la moo xam jigéen la wala ñu di ko ngoro wala muy ngoro bañ ñu xam ay atam fu mu àgg loolu dafa xaram bu doon ci jihaad nag la moom ñuulal kawar dañ koy sopp bu dee yi ci des nag dañ koy sib bu fekkee ne benn joy taxul dañ koy sib euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam santaane woon nañu soppi kawar bu weexee waaye nag nañ moytu lu ñuul la kon jëmmi liñ koy defee yitteelu waaye bu soppee kaw bi ñuulal ko rek daan na dugg ci tane bi moo xam matière bi ñu jëfandikoo ngir kaw gi ñuul loolu yitteelu ci li yitteel mooy ñuulal gi mu ñuulal kaw gi bu fekkee daal lëntal la ci jublu day xaraam bu ci jubloo dimbale lislaam nag luñ sopp la bu ci muccee ci ñaar yëpp nag luñ sib la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndoxum sinwaa mi nga xam ne day wer dañ koy faj am sut day yàqu koor wala déet waaw bu fekkee ne day dugg ci biir de ba àgg ci biiram moom àgg ci ak bëleem waa day yàqu koor bu dee loo xam nag dañ koy dig ci bakkan mu yem ci kaw waaye du jàll ci biir dara nekku ci wallahu taala alam mbokk mi laaj nan lañ war a génnee asaka ndax nee na toll nañ ci waxtoom ak buñ ko génnee kuñ koy jox ak lu toll nan la ñuy génne loolu dangay xam alal ji ñuy génne dara wax loolu wax ne toll nañ ci waxtu asaka it loolu jar na leeral amul wenn waxtu wax dañ ne la waxtu wi mooy waxtu asaka kenn ku ne moo am waxtu asaka ak alal ji wala nit ki bu dee alal ji bu dee mbay la saabu ñoree la bu fekkee euh, waxtu wi mbay day ñor kon asaka war na waaye bu dee waxtu woo xam ne mbay du ñor asaka waragut kon asakay mbay fi ñu nii bu dee ci Sénégal ñi mbay mbayum nawet asaka waragut ci ndax ñoragut bu dee jur la euh, moom itam at ba at la waxtu wi nga amee woon jur gi bis ko amee woon bu del see la te man nisaab ko tënk ci wenn waxtu bu dee xaalis it noonu bi nga amee capital di commerce di def commerce wala nga am alal yooyu denc bis bi nga ko amee bu del si waatee la kon at bis bu ne ci at mi rek mën naa doon waxtu génne asaka ñu aju ci nit ki bu defee nag alal ji ñu toll moom bu dee ak jur xam nañ ko bu dee gëléem la juróomi gëléem la bu dee nag fanweer bu dee gàtt muy muy xar ak béy ñeen fukk boo ko amee war la génne asaka bu dee xaalis nag am lu mën a jënd juróom-ñett fukki garaam ak juróom ci or bi nga xam ne mooy vingt quatre carats vingt quatre carats cinq grammes ya lu toll ak moom ci xaalis bu mën a doon muy Sénégal ak feneen ku ko am am nga nisaab bu dee fii fi ni jege na ñetti million la bokk day tegal tuuti sax ku ko am denc ko at maanaam bis bi nga ko amee del siwaat na kooku la asaka war asaka jooju nag buñ ko génnee eh, sunu borom moo wax ñu ngi koy jox tudd na juróom-ñettil ci alxuraan ñi ci gën a fes mooy ab faqir ak miskin faqir mooy koo xam ne amul dund atam ren ba déwén miskin mooy koo xam ne amul dara ñooñu ñooñu lañ koy jox wala nga jox ko kër yi nga xam ne day saytu asaka ni fii ci Touba kër asaka yi sëriñ bi joxe ndigal ñu ngi fi di saytu asaka yi di ko jox seen waram ku leen ko jox danañ ko jox ña ko yeyoo euh, su ko defee ñu xam ne asaka ak euh, jaamu yàlla la goo xam ne nit ki du nit ki mooy tànn rek wenn waxtu muharram dëgg la mooy tàmbalik atum jullit waaye mën naa bañ doon nag waxtu génne asaka ci nit ki ba mu doon mooy day fekk bu dee capital bu dee kuy commerce ci la amoon capital kon mën na ko ciy génne ndax mënoo mënoo bu la waroon ci yeneen weer sa ñëw koo denc ba tam xarit ñu ngi dugg su fekkee ne bi tam xarit di jot waragu la génne ko waragu la kon faaw day nekk waxtu yi nga amee woon alal bu dee mbay day doon waxtu mbay mi ñor bu dee jur day doon waxtu yi nga amee woon jur ji asaka door la ci war loolu it du mat di bàyyi xel la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee ndax cen rubon dinaar ji xaalis dong lay doon wala mën naa nekk yeneen bagage yu mel ne téléphone mu nekk ab liggéey boo xam ne danga koy liggéeyal góor gi waaw can day mën naa doon xaalis mën naa doon muqawam maanaam lu xay xayma xaalis marchandise mën na koo doon nit ki rubu dinaar ñuy wax it mooy li gën a néew ci mazhabu Malik waaye waxuñ ne loolu lay doon maanaam bu mu ko yées lañuy wax li ñu li ñu joxe bu mu yées rubu dinaar waaye mën na ko ëpp nag foofu Euh, bu ko defee nag mën naa doon xaalis ni ko waxee mën naa doon or mën naa doon ay bagage yoo xam ne lay joxe ni mu waxee téléphone wala yu demee yoo xam ni eh, njëgg mat na rubu ordinaire rek bu ko xasee joxe mën naa nekk kenn naka noonu mën naa doon ay liggéey it boo xam ne ndaw see ci jariñ waaye bàyyi xel ne kenn ndaw see ko moom jagee day bayal bàyyam ak tool rek da mu doon can gi ndax kon day mel ne kon loola moom soxna si jëriñoo ko kenn soxna see moom moom lañ koy jox bu ko mayee bàyyam nag ba tey baax na bu ko mayee bàyyam sax euh, na ne ku ku lu ma ne ku takk soxna ci saartub nga jàngal ko alxuraan mu mokkal nangami sisib wala nangami saar mën naa doon kenn loolu am liggéey la ko jàngal ko alxuraan masalan mu doon kenn am nga xam ne loolu buñ buñ jàppoon ne ku jàngal ñu lu ci alxuraan euh, lañ ko tey fay dana mat cen su booba na nekk cen ba tey wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj na soxna soo xam ne dañ koo bëggoon a may kuy tux ndax am na dara ay waajuram force bëgg ko force may ko ko te moom nee na fës yéene see kuy tux ba tax mu dogoog ñoom muy laaj ak teg loolu waaw loolu mu def di lu baax la ndax tux moom dafa xaram loolu mooy li gën a lañ ci wax yi dafa xaram ndax loolu ji ci nekk kon nag euh, moom bañu nit ki waaye lu bon la ñuy def la bañ moom ab jullit loolu la ko war euh, force nit maye ko it nag lislaam da koy tere am na koo xam ne ba ko bàyyam bëggee force maye ko daa dem ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko yonent bi ko sëñu la door wax ne nangu bëgg ñu xam ne ñi ñu ngi fi àggu ci nag bi ñu maye te euh, taggu ñu laaj ñu suñu xalaat kon euh, loolu daf sañ na ko waaye nag jërut da koo nag moom na gàntu liñ bëgg a def waaye nag bu mu dogoog ñoom ndax loolu jotewuñ bokkuñ lii moom na leen leeral li tax mu gànt ko bañut ko waaye nag lii lu yàlla bañ la ginnaaw yàlla bañ na yéena mu waroon a jàppale ci bañ la ma ko ndax kuy xëtt ndigal yooyu noonu mën naa def geneen mooy koo xam ne xëy na ñoom gisuñ ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na soxna soo xam ne daa am ku bëgganteel waaye nee na leer na ko ne ku baax la waaye ay waajuram lànk ne duñ ko ko may ñax xëy naa lu loo xam ne dina tax waajur yi nangu wala mu sañ a jaxasoo waa ji seq ak moom ndax waajur yi mën ko ko may waaw ñaari yi di benn gënu ci bu mu ci def benn na sabablu sabab bu tego ci yoon yontu ay islaam daa waxoon lépp lu ngeen sàkku neen ko sàkku ci rafetal ndax li yàlla nar moom noppi faw mu am bu suñu borom dogalee ne mooy doon borom këram kenn mënu ko fànq bu dogalee na du ko doon kenn kenn mënut tax mu doon ko kon na ci rafet kon diisool ñu war a diisool ñu wax ak way juróom lim gis ba tax mu bu fekkee li mu wax noonu la mu leer ko ne waaji ku baax la bu fekkee loolu leer na ko nañ ci lu wér mën naa sabab la ci ñooñu fexe bañ may ko keneen kuñ ko bëgg may sañ naa joxe ngant ne kii xëy na su boobaa mën tax ñu ànd ak moom ci la baax jëm gis ci waaj it ne leen ko ba mu leer leen waaw kay wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne ab politicien dafa ñëw eh, jox ko bay màkk ndax sañ na ca aj màkk bu ci ajee ndax dana wér waaw bu fekkee ne alal joo xam ne leer na ko ne politicien la waaye alal ji moo ko moom bu ko joxee loolu dara nekku ci moom loolu leer la xëy na nag bu dee politicien boo xam ne jàppul ne alal ji moo ko moom xëy na alal ju jàpp ne léwut la waaye bu dee alal ju léwut joo xam ne amul borom bu ñu xam ne diwa ko moom it te moom laaju ko doxiwut doxiinu mel na ku ko soxla di yërëmtalu ci kanamam wala muy wane aajam ba mu ñëw di ko jox daa jékki-jékki rek andil ko ko su boobaa sañ na koo jëfandikoo bu caajee incha allah dañ ko nangu ndax moom anam gi ko alal ji dikkee anam gu dagan la yonent bi aleyhi salaam daa waxoon ne lu la dikkal ci alal yàlla ji te laajoo ko néewoo di ko yoqamtiku di ko yaakaar di ko di ko di ko yërëmtalu bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla indil la xanaa nag mu doon alal joo ne mu xam na ne diwoo ko moom masalan tey politicien la waaye xam na ne alal ji da koo ci diw alal jàmbur la jël jox la alal nag moom kenn suñu ko lekk bu nangu ci diw alalam ñëw jox la ko loolu ko lekk moom waaye bu dee alal joo xam ne nag benn da nga jàpp ne amul borom ndax ni mu ko fàggoo lewut waaye du alal jàmbur jum jël jox la waaye anam du mu ko fàggoo moo lewut te laajoo ko ko doxoo doxin wu tax mu yërëm la jox la ko sañ nga ko lekk ndax wërsëgu la yàlla jël la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne doon na góorgóorlu ci lu baax kem kàttanam waaye nee na seytaane man ko bam njaalo te mu dégg na ñu wax ne ku njaalo du su am ci yàlla muy laaj ak leeral ci loolu waaw njaalo de day ñawte foo xam ne lenn ci nit yàlla yi ñooy wax loolu wane képp koo xam ne daf na ko bu tuubee tuub gu sell dañ ko jéggal yàlla bàkkaar lu mu rëy rëy boo ko tuubee waaye nag dana jafe mu amati cër ci ci nit yàlla yi ñoo koy wax wax ju mat a bàyyi xel la nag wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na da am doom joo xam ne ju jigéen fukki at ak benn rek la waaye neen day gis baax muy laaj ndax nit ki su gisee baax rek mukallaf la wala faaw moom at yenn yi waaw li jàpp li ma jàpp ne jar na ko de mooy ne dem ci docteur yi ñu gëstu ba xam du wéradi waaye bu leeree ne du wéradi baax la bu waa mukallaf la ndax bokk na ci mandarga yi nga xamee ne nit ki mukallaf la gis waaye nag na ko gëstu ba xam ak wéradi la wala déet bu leeree ne dara jotut soxna si eh, docteur yi saxal nañ ne ko lii muy gis baax la nga xam ne kon jigéen ñu nekk na mukallafa li ñu sant jullit bu ne sant nañ ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa gis ñu bari ci taalibe bu ñuy wax soobee sëriñ bi la ñuy wax muy laaj loolu waaw coobaay de ci loxo yàlla la nekk ab jullit moom bu soobee yàlla la war a wax sëriñ bi loolu la ñuy jàngal loolu it la doon def ak fonkam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa kenn ci noonu àggu ca waaye mësta jël cërub yàlla di ko jox yonent bi alayhi salaam ci coobare ci loxo yàlla la nekk moo tax bu soobee yàlla la ab jaam di war di wax wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne seen waajur dafa faatu bàyyi alal ak kër ñuy miraas nag boo xam ne dañu jaay kër ga nee na doom yi xëy na mën nañoo man ñett ku ne ci ñoom ne da koy jënd te kenn mënu koo bàyyee morom ja nu ñuy def ba jaay ko kenn ci ñoom ci ci lislaam anam goo xam ne xëy na lislaam du ko du ko tere waaw bu fekkee ne ñoom ñëpp mën a jënd jënd gu teew ci kenn dañ ko tege bant bant wa dal ko ko fay ko bëgg nag ki mën lu teew kooku la ñuy jiital bu fekkee daal ñu a lu teew ak ñoo xam ne mënuñoo fay lu teew ki mën a lu teew la ñuy jiital bu defee mën a génn bu koy bant wallahu taala alam mbokk mi lay nee na bu ñuy watee lan moo tax ñu war a wate nit ki waaw nit ki de bu ñuy wate mooy ab liggéey bu ñuy liggéeylu boo xam ne xeet wee ko ajo war a jiite dara ngir taxawu ci nit ñi wala war leen nekkal fenn loolu nag su boobaa ki ñu tànn daa war a mat loola kon képp ku ci tànn daa war a tànn koo xam ne xam na ne lañ ko fay doyee man na ko wala boog am na ci yaakaar xam nga ci foofu la la war a féete liñ koy def loo daal boo noppee am nga yaakaar ci ne mën na ko ci ak jubam xam-xamam ak ngëmam yëpp mu leer na ne wala boog am nga yaakaar ci ne kii daal lañ koy doyee fay bu demee dana ko mën danañu fa mën a nekkal lañ fa bëgg dana ci mën a taxaw ci tam tegu ci yoon ku mel noonu la war a tànn wallahu taala alam mbokk laaj ndax julli néew boo ci juumee danañ ko sujjóotal wala déet mu joxe misaal ne ku doon julli néew kàbbar ñaari yoon daal di sëlmal ngir njuumte mu ngi def julli néew amul sujjóot ci biir julli gi kon dee su ko jàngee ab sujjóot ku juum ci julli néew noonu mu ko waxee bu dee ñaari kàbbar la kàbbar bu dee ilimaan la maamoom yi nañ ko sàbbal bu ñëwee kabaraat ànd ak ñu ànd ak ñoom ñu mottali julli ga dara waru su fekkee ne ilimaan nag ñëwut ñoom nañ mottali kabara ñu maamoom yi su ko defee julli ga bu fekkee dañ ko fàtte ba yàgg nag ñëpp di fàtte ko mu yàgg fàttaliku julli julli bu fekkee du suula guñ ko nañ ko jullee waat buñ ko suulee dañ ko jullee ci bàmmeel ba wallahu taala alam